raisu qasrihim huwa al imaanu lana ata min nahwi al ihsaan kooku moom teral na ñi di borom dëkk ba mooy kooku mooy seen njëndal dëkk ba te bàyyi sax léegi mu ne raisu baldatihim wala qaryatihim mooy gën a dégg arab kuy dégg arab mooy bàyyi daf ne raisu qasrihim kon ngoni ba sax jàppal ne li bàyyi utiliser mooy ay palais kon boo gisee autorité yi jublu fa boo gisee nit yi diine jublu fa mooy ne li leen bàyyi taggee mooy yar ak teg yi ca péeb yàlla ba waaye ñu am teraanga lañ wax nga ko léegi oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu ne lu nit gëm gëm gëm yàlla wala loo am xarit lu xarit bi baax te fekk gëmul yàlla mën nga ko tuddee mboolem turu yàlla yi na kii kat ku tabe la ci nangam ak nangam waaye kër yi moom duñ ko tuddee lu dul ko gëm yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abaawo kuramaawo la Mawlana tabaraka wa Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu wax ay maamam léegi nag cheikh cheikh alaaji baaw ba moomu moom mi nga xam ne mooy waajuru cheikh alaaji cheikh ibrahim ba mi nga xam ne tey mooy xalifaam woykat bi ne wa muxlisun laa yaarifu tawaani fi xidmati alxalili wa tijaani lii yëpp ci liggéey boobu la bokk mu ne Cheikh Ibrahim ba moomu mu ne xamul daas daasloo maanaam naxante ci liggéeyal lislaam jaaree ko ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci li nga xam ne mooy tariq bi ak faydu bi mu ne moom ci la ko yàlla mayee loolu maanaam sell gi mu sell li ku ko mayee mooy laa yaarifu tawaani moom xamul daas daasloo nit ñi nañ daf nga ànd ak mbooloo moom daal dana wuutu mbooloo waaye dana ànd ak mbooloo daf ndax inna ibrahima kaana umma ibrahima peuple la ibrahima mbooloo la loo dam rek ci jikko yu baax yi danga ko fekk ci moom mu ne lahu min al axlaaqi wal mazaya maa amatil amsara wa zawaya kii jikko yi kawe yàlla daf ko def ci moom ànd ak ne foo dem ci réew yi foo dem ci réew yu mag yi boo fa demee rek fekk nga ne ñoom xam nañ kan mooy Cheikh Ibrahim Ba waa ji mu ne man de li nekk ci moom ci ay teraanga sax li nekk ci moom ay ci wasfu yu baax yu rafet kooku lottal na ma qad ajasat an wasfihi al aqlaamu wa xaara fi idraki l lottal na ma sama xalima lottu na ci bind di mellal doomu alaaji cheikh alaaji baaw ba boobu di cheikh ibrahima ba tey nga xam ne mooy xalifaam mu ne kooku pour ma mellal mooy kan ndax lu tax ma tëb rek ñëw ci cheikh ibrahima ba ba léegi ci cheikh alaaji baaw bi laay wax ndax haadihi athaaruna tadullu alayna fanzuru kayfa baadna ila al athaari boo bëggee xam góoru yàlla yi bàyyil bañ dam te Cheikh ba daan na wax ne jub leen te bu leen yàkkamti ndax sama ginnaaw yàlla xamal na noo mooy gën mooy gën a rafet mooy gën a neex ci ba ma nekkee ak yéen ndax bi mu nekkee ak ñun loolu kiiraay la lu bari dafay nekk kiiraay ci jaam bi waaye ba mu demee nga xam ne man kaana lillahi kaana llaahu lahu te ñooñu ñooy góoru yàlla yi nga xam ne lu yàlla bëgg rek ñi nekk ci lu yàlla bëggul ñi wan ko ginnaaw moo tax mu ne qad ajazat an wasfihi al aqlaamu lottal na sama xalima ci pour tagg kan mooy Cheikh Cheikh Ibrahim Ba waxaara mun a gëlëm loona ak anaamu mbindee fi fi idraaki yi pour jot Cheikh Ibrahim Ba ci may di ko yàlla may lu ko may loolu fu mu ko jëlee nag mun a xat warisal majda majda talida mu lii dafa dafa yàgg ndono lu yàgg la loo xam ne bu tedd ci kuramaaw boobu bàyyi wax alkarim na ñu fekk naa la ñu nekk ñu tedd mu ne min mu ne mu ne qad warisa al majda talida min sula latin asilatin ariqatin wala Cheikh Ibrahim ba muy jikko yu nekk ci moom daf koo jëlee ci baayam baayam moom jëlee ko ci baayam bi Cheikh Alaaji Maas Ba mu jëlee ko ci Cheikh Alaaji Saalum Diané mu jëlee ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mu ne ñii may wax nag seen ndonali seen teraanga yi du tey rek de du tey jamono neex la ñu nekk ci de waaye mu ne ariqatul luquud la alwala mu ne lu méng ba man koo wax nag ne diw la diw diw diw diw mu leeral ko ne fa huwa karim ibnul karim ibnul karim mu ne haama barrun bi taqaaridi xarit doomu ku tedd la doomu ku tedd la sëtu ku tedd la te mu ne loolu luñ mën a toftalante la ba fu fu yàlla soo mu ngi koy ñaanal yàlla mu ne fa yaa ilaha al aalamina tawilan yow yàlla maa ngi lay ñaan nga guddal fanukan amaarahu wa saxihan lahu lbadan te guddal li nga xam ne mooy dund Mawlana Cheikh Ibrahim Ba al Khalifa nga xam ne laq na téere bi yàlla bi yemul ci waaye dafa am xam-xam di jëfee xam-xamam ku dem ba day àtt ci tribunal maanaam li nga xam ne moom foo la génnee tey mooy mooy mooy mooy xaadi la xaadi nag bu ñu ko waxee mooy koo xam ne xam nga baat bi sax lu jafee wax la baatu xaaf ak ba mooy ne loolu manhaju Mawlana Cheikh euh, Mawlana Seydina Umar ibn Xattaab la yàlla mayoon na ko mu dëggu ba nga xam ne daan na wax naan rahima allahu maraan ahda ilayya uyubi man Seydina Omar ibn Xataab yàlla na yàlla yërëm ki gis sama def rek mu wax ma ko man haja man haja boobu rek loolu moom mooy diplôme Mawlana Cheikh alha Cheikh Ibrahim ba mi nga xam ne tey bàyyam jàngaloo na ko xam-xam jàng gannaaw bu mu wëtu alxuraan ci lu matu fukki at euh, mu dem jàngi Soudan am xam-xam lool indi diplôme boobu ma la wax waaye gannaaw gi dafa teg loolu soobu góor soobu soobu waaye góor yàlla yi waaye nag ci rek teggee bi ñu teggee woon daarul muhibbina ndax bàyyi nee na fal adabal adaba yaa sa saalik fa innahu l baabu li kulli saalik loolu mooy melakaanu ngodi ba loolu mooy melakaanu góoru yàlla yooyu nag te waliyu yàlla yi yàlla wax na duñ tiit ci àdduna duñ ragal ëllëg ci àllaaxira alaa inna awliyaa llaah laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun alladiina aamanu wa kaanu yattaquun su fekkee nag imaam abu xanifa tamu na su fekkee nag góoru yàlla yi nga xam ne dañuy dañuy def maanaam lu digle yàlla yi bàyyi tere yi su fekkee nag ñooñu duñ ay waliyu yàlla kon fa laysa lillahi waliyan ñu ne ko waaw alaa inna awliya allah laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun abu xanifata wala kenn laaj na ko ci borom xam-xam yi laaj na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne hum naasun min abnaa'i nnaas yatazaawaruuna fi llahi tabaraka wa taala wa yajtamiuuna fi zaati llahi tabaraka wa taala wa yatajaalisuuna fi llahi tabaraka wa taala ulaa'ika alladina laa xawfun alayhim fi dunya wa laa hum yaxzanuuna fi l axira mu ne ñooñu ñooy nga xam ne dañuy dajee di bëggante ci yàlla di ziyarawante ci yàlla di toog di waxtaan ci yàlla te wax naa la fu ñuy tuddee yàlla jëm yàlla ji moo fay wàcci kon ziyaara loolu mooy njëriñam bokk na ci njëriñal ziyaara boo matul boo demee ziyaara ji ku mat ñi yéegal la ci matam googu waa ji nee na zur man xawayta wa in shatat bika daaru wa xaala min dunihi xujbun wa astaaru laa yamna anka buudu an ziyaaratihi inna almuhiba liman yafaawu zawaaru loolu woykat bi nee na ki nga bëgg lu mu sori sori sori lu jafe-jafe nekk ci diggante bi nit ñëw taxaw foofu dafa sori yoon bi baaxul oto amul wala nangam déedéet demal ndax nit dafay ziyaara ji ku mu bëgg nit dafay topp ki mu bëgg te wax naa la ziyaara bii nag charaji baaw ba daan na wax bu ñu julee jumaa ci bésu ajjuma bi ni ki suba daan na wax naan nangul leen ma ne ziyaara wuñ ma waaye ki ñuy ziyaara kenn la te mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu kooku la waykat bi waxoon ci moom na zuuru barhaama li wajhillahi niltumi arfanan ma raqayi dam leen ngeen ziyaara ji bàyyi te yàlla tax te yaakaar naa ne yàlla rek war a tax ngay ziyaara bàyyi mu ne boo ko ziyaara da nga am maarifatu billahi bu leer naññi waaye da nga am li nga xam ne tim mooy taraqi ilallahi tabaraka wa taala yéeg maqaama yu kawe yooyu bàyyi nag mu ne boo ma toppee rek moo yóbbu la ci kamaliyatu boobu nga xam ne foofu fan la foofu mooy ci nga xam ne mooy xadatul kursi ndax ak kamaalu lillahi wax da yàlla rek mooy yelloo mat waaye bàyyi bu na topp ma soo ma toppee rek ma yóbbu la ci loolu nga xam ne mooy alkamaalu te mooy ci jëmm yàlla ja loolu mooy li nga xam ne buñ ko doon tënk rek ci lu jëm ci góor yàlla yooyu ngi war a ziyaara si ziyaara bi nag ñëpp ñu ci jaar ñëpp wax nañ ko samedi la le 13 janvier incha allahu tabaraka wa taala yaakaar naa ne ñëpp yëg nañ bi léegi ci ngoli ba lay amee ngoli ba ren mooy 67e édition ci ziyaara bi ci teewaay moo Mawlana Cheikh euh, Mouhamadul Mahi ak mboolem kàngami Medina. ak mboolem muqaddam yi nekk fii Kaffrine waaye ba bitim réew sax ba Amérique sax nit dana fa jugee di dana fa jugee ñëw di ziara si euh, di ziara Ngodiba te loolu dëgg-dëgg bokk na ci yokkute ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañ ci yegg ak jàmm yàlla defal ñu tawfiq bokk na ci programme ziara bi suba ci guddi incha allahu tabaraka wa taala danañ tertoo gan yi zikar tudd yàlla dundal guddi gi dalalee ko gan yi waaye bokk na ci bes bitim bu ñu fa yeggee ni ko Cheikh Babacar waxee bu ñu xëyee li ñuy njëkk a def mooy jàng kaamil alquran bi jàppal ne bu ñu jàngee kaamil bi li li ñu waroon ci ziara bi yëpp jeex na li ci dese ay protocole la muqaddam mi ñëw ziara si ak ñi nga xam ne ñooy am di jàmm yu soppe ñëw ziara si ngodi ba ndax xam nañ ne bu ñu ñëwee bàyyi leen ziara si gannaaw bu ñu fu jugee daf yëfi ndawkunda daf yëfi séeréer yi gannaaw bu ñu fa jugee préparé li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ci teewaayu cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci Medina ak fii ci Kaffrine ñu ngi ciy séntu ñëpp di ci séntu autorité bi waaye di gërëm ni ko ñëpp waxee ki nga xam ne mooy Cheikh El Hadji Bouya Amar di gouverneur bu Kaffrine di ñaan yàlla yàlla dafa ko toofeex ndax daf na jéego yu am solo jokk ko ci yi nga xam ne moo weesu woon ci ñi ko jiitu woon ñëw na ko Cheikh Ibrahima ba waxee delloo buum sa mbooy mbooy ga ñëw pour continuer ndax mbir mi continuité rek loolu la ñëw pour yegg ko bokk na ci kerek baat yi ma gën a jàpp mu ne bi mu déggoo bi mu dégloo xalifa bi Cheikh Ibrahima ba mu wax ba pare mu ne kii daal dëgg-dëgg conseiller la sax ci état maanaam mu ne mu ne état sax dañ ko war a déglu ndax li muy wax yëpp waxul benn yoon na moom mais li muy wax yëpp ci askan bi lay delluwaat te état dëgg-dëgg loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy rôle état su gisee ku mel noonu dafay gis ne kii man lay jàpp jàppale man lay dimbale li ko ko mooy nag mooy yaru góor yàlla yooyu ñu yar ko waaye li ko ko dafa jàng xam. bi mu jàngee tim xam ne jëfee na ko yonent bi na boo jàngee ba pare jëfee li nga xam mu ne ma jox la ma doon loola xam-xam boo xam ne sax jàngoo ko lu mooy ne wooy wooy taqullaha wa yuallimukumullah ci nga koy jëlee te mooy ragal yàlla googu yàlla yàlla defal ñu ko ñëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom nit mu ngi doon doyee parce que motuma ko ndax dañoo nekk ak suñu xalifa muy Cheikh Ibrahima Ba nit koo xamante nii mun naa wax ne fépp fu bàyyam de araj baabu ba tegoon tànkam teg na ko fu ko raw ndax man sama turandoo li ma nekk moom mën naa wax ne bari na waaye taxul woon ma xam si moom lu bëri mais Cheikh Ibrahima dafa ñëw képp koo xamante ni kilifa nga si dëkk bi day jël sa doom taf la si boppam pour fexe nga tàpp topp tànk yi nga xam ne moom la sa way jur toppoon nga topp ko yow tamit ñun daf ñu may chance yu bëree bëree bëri bëri nit ku baax la mosuma gis nit ku fonkee lislaam ni Cheikh Ibrahima ba fonkee lislaam donte na nag sama dox bëriwul mosumaa gis nit ku bëggee dëkkam ni Cheikh Ibrahima ba mosuma ko gis donte na sama dox bëriwul dama koy dégg mu ne su ma dee woon màkk yàlla na yeex mu ne su ma dee woon màkk di wër kaaba gi ba teg sama loxo si kaaba gi génnee foofu àdduna nañ ma delloo si ba ngëri bi ñu deytu ma loolu nit ku bëgg dëkkam moo koy wax te comité d'organisation bii nii maa ngi nuyu président bi mooy Madji imam Madji Ba maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm si taxawaayam comité bii nii xalifa bi Babacar wax na ko sant si ginnaaw nee na xalifa bi moo ko Cheikh Ibrahima moo ko jiite woon bi Cheikh Alaaji Baaba ba di dund te daf ko defoon ma nga xamante ni te loolu mooy continuer ba léegi commission bi amul benn koñ benn quartier boo xam ne yaa ngi ngodi ba te seen nit bokk ci boo ñëwee da nga ay pël da fekk wolof da nga fa fekk dañ fa fekk sant bu ne dañ fa fekk ndaw mbay ni sax ñoo ci gën a tuuti dañ fa fekk ndaw jaane wilaan mbeng toog yépp di nga ko fekk jaa bépp sant boo xam ne ni yaay ngodi ba boo ñëwee si comité d' organisation bi di nga fekk koo xamante ni moo jiite loolu nit ku baax la day wax ñun dañuy toog mu ne ñi bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi dund bu fekkente ne nii tey fukki waxtu na la seen borom may ne moom nga war a dund mu ne ñaar yëpp wala ñett yi war nga ko jël nga def ko ci askan bi lii des nga def ko ci sa bopp mais nit warul dund pour boppam kese te ñun loolu xam nañ ci dara sëriñ bi bu amee ñëpp dinañ ko yëg ngodi ba yëpp bu sëriñ bi Cheikh Ibrahima bu dalee si xewal ngodi ba yëpp dinañ ko mais bu ñàkkee mën nañoo wax ne moom kese moo koy dund te day dund nag des fois mu nekk ak jafe-jafe yu méttee ni ni li daal li daan dal Cheikh Ibrahima Niass di dal Cheikh Alaaji Baaw ba daf ko dal da koy dal moom mii sëriñ bi day toog léeg-léeg lu sugar ataaya sax du ko am mais terewul ku fa tok tay indi fa sa soxla nit joge fenen indi fa xewal bala wa kër gi di jëfandiku dara day yëkkatee ki bi lim yor yëpp jox la ndax man tok na muy jënd ay ordonnance moment yi nga xamne ne man dama ran taxi daf ma dal yoni lu bare bare bare ay ordonnance yo xamanteni man na la wax ne la wan duñ sax ordonnance jambour yo xamne ne du ci kër gi du ci quartier bi ci biir dëkk bi nit man damay tok tok rek bolu ci wala xéwal romb ma ñu ne sëriñ bi moo ko jox benn xale wala moom sax du ko maanaam du doon sax luy feeñ waaye des fois mu dem si biir këru nit ku néew doole mu ne bés sàngam de sëriñ bi yónnee woon na ma nàngam kon ñun kilifa gi nga xamante ne yàlla daf ñu ko dénk ñun dañ koy sagoo ku ko bëgg ñu bëgg la te respecté nañu képp kuy kilifa si dëkk ba Cheikh Ibrahima jox na la sa cër ba mat sëkk sama papa du du def lenn loo xam ne nii Cheikh Ibrahima du xam ne demul diisoo si ak ak bay si rek loolu mosul am te noonu la ko seen alaaj baaw ba daan defee moom alaaj baaw ba loo ko waxaan na ko lii laa bëgg ñu def mun la demal wax alaaj taala ndaw alaaj taala boo ko demee ne lii laa bëgg ñu def mun la demal ndax wax nga alaaj baaw ba ñoom noonu lañ dëkkee woon te sëriñ bi bi mu ñëwee Cheikh Ibrahima wàññiwu si dara daf ko yokk daf ko yokk ñun ndaw ñi ne daf ñu may chance yu rëy ndax délégation boo gis Cheikh Ibrahima fu mu jëm délégation bi quatre-vingt pour cent yëpp ay ndaw rek la say nekk mag tuuti lay doon kon ñun tamit mu ngi may sens en tout cas daal ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram kàddu yi si ëpp bu ngeen toogee li mu lay wax mooy fonk leen seen i waajur loolu lu jafe la ndax bëri na ñoo xam ne bu ñuy woote dañuy woote rek jëmale ci seen bopp waaye Cheikh Ibrahima foo toogee moom fonkal sa yaay fonkal sa pap fonkal sa mag fonkal sa rak te jafe-jafe yu bëree bëree bëri yoo xamante ni mu ngi am si dëkk bi ak si tund bi ak ci Sénégal da si def intervention yoo xamante yu ama am solo la loolu nag ñun dañ ci dañ sant yàlla bu baax ndax ñëpp waxuñ ne waxuñ ne kenn amul kilifa waaye ñun ñun kenn ëpp ñu kilifa ñun dañoo am kilifa wax dëgg yàlla ngodi moom ku ko ne si kilifa rek la dox ña fa nekk mag ñu baax lañ Seex Ibrahima ñëwaat nekk sëriñ boo xamante ni mën nañoo wax ne waaye li muy def sax mag ñi mënu duñ ko def ñun daal moom sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fépp foo xamante ni bëgg na ko yeggale Ngodiba te mébét yu rëy nag la am pour Ngodiba loolu ak taalibe yi sax laay wax du ma wax Ngodiba ndax mu ngi am ay projet yoo xam ne ni mën naa la wax ne yu bëree bëree bëri daf ko génne ndax euh, li may wax Babacar ak imam euh, Cheikh Aliou Ndaw mii ay seede lañ am na ay jumaa yoo xamante ni mu ngi koy tabax ci ci ci ci région bi ci yeneen dëkki taalibe yi la te mébét yooyu mu am ci yeneen dëkk yi yu ko raw la am Ngodiba Ngodiba mu ngi fa am mébét yoo xam ne man li may ñaan yàlla rek mooy mu am fan bu gudd ak wér-gu-yaram boo xamante ni moo fekkee lay mébét yooyu noonu ndax mébét yu rëy rëy rëy la Cheikh Ibrahima Ba am ngori ba te incha allahu rabbi moom nit ñi gëmal te nit bu nekkee si lu baax dañuy gëm ne fu mu bëgg yegg rek dina fa yegg gëm nañ ne dina fa yegg te bu fa yeggee di ngeen gis beneen ngori ba incha allah. coordonnateur yi nga xam ne seen waxtaan am na ci bari di ñëwaat ci. autorité yi sànq maa ngi lay wax ne la gouverneur li mu santaane woon Senelec ñoom def nañ ko ICC def nañu ko waaye ma wax la ne la gendarmerie ñëw nañ fa tey rek moo fi mujj fa ñaari yoon ku xam na ne mbooloo fu ñu dajee sécurité am na euh, te ku wax sécurité sa xel day gendarmerie euh, ñoom ñëw nañ fa ñaari yoon toog nañ sax ak xam nga li ma la wax léegi onze commission yi ñu am am na commission boo xam ne commission sécurité la yi ñëw nañ fa toog ñoom ndax ñu mën a liggéey ci bis loolu lu am solo la ku ne xam na ne it euh, ngodi ba dëgg la am nañu jafe-jafe ndox waaye yaakaar naa léegi tey mu réglé wu mm-hmm. waaye ànd ak loolu yëpp flexi wu ñu jël nañ seen i moyens déplacé wu mm-hmm. fépp foo xam ne buñ ko ubbee ay bords de fontaine yoo xam ne bu ñu ko ubbee ñi nga xam ne seen kër yi dañoo am ndox bu ñu fa demee mën a am ndox mm-hmm. ñoom it def nañ ko ni ñu war a defee jàpp nañ ci bis bu baax lu mel ni osofoor yi ku tudd gàmmu di nga soxla euh, mat wax dëgg yàlla yonent bi loolu ñoom it def nañ ci liñ ci war a def ñooñu dinañ leen gërëm dinañ leen sant waaye monsieur le maire El Hadj Aliou nga xam ne moom itam membre la ci commission d'organisation bi nga xam ne bàyyam la woon ak El Hadj ah. waaw macha allah kii doon woote léegi maamam ñu ngi tudd Abdou Diagne xam nga lu amul lu amul firnde rek dañ koy kii ziar ngodi ba mi ngi soqeekoo ci ci waa njigi yi muy sunu baay Abdou Diagne ak suñu baay Dame Siñaan ak suñu baay Taay Diop ñoo nawet ba nawet wàcc ñu jël seeni buy ak seeni daxaar ñëw ci Cheikh Alaaj Baaw ba di ko ziare si waaye li ñu wax ci ginnaaw nit dafay am kilifa Cheikh Alaaj Baabu ba ne leen waaw baax na jërë ngeen jëf dégg naa li ngeen wax sol dàllam dem ci Mawlaana Cheikhul Islam Alaaj ne Niass nee ko kat bokki taalibe yi ñoo ne dañ maa bëgg ñëw ziyaare si Cheikh Baabu ba may bu ndigal ziyaare ba xam nga fu ñu ko defee ñu ko defee ca tool yi di deq gerte bañ deqee gerte ba wàcc ñëw lakk gerte ndaay keroog moo doon añ ziyaare bi mu continuer di am ba Seydi Aliou Cissé Mawlana Cheikhul Islam yebal ko ko mu ñëw gannaaw loolu képp kuy xalifa Baye Niass rek yaa yaa yaa yaa yore ziar bi loolu luñ ci doon entre parenthèse buñ ci doon ubbi la maa ngi doon ci kilifa yi leen gërëm di leen sant euh, gendarmerie ni ñu ko defee noonu la ko Osafoor defee noonu la ko douane defee noonu la ko monsieur le maire mi nga xam ne Ngodiba ci territoire am la bokk ànd ak loolu yëpp doomu Ngodiba la waaye am na cër bu ko yàlla jox moom it lépp loo xam ne lu mu waroon a def ci gàmmu gi la. def na ko ci wàllu mairie ndax lépp lu mu waxoon moom ci CRD bi wax dëgg yàlla ak yonent bi def na ko def ci sax loo xam ne ah taalibe la ci kër gi mbokk la ci kër gi moom it bu ñëwee ba fii dañ ko sant dañ ko gërëm waaye nag ci boppam la nekk ah, ñuy wax ci programme bi étudiant arabe yi nga xam ne ñoo nekk ci maat ah, rajo Maasba ak CN bi ak étudiants yi nga xam ne ñu ngi ci université Cheikh Anta Diop eh, ñoom lañ dénk commission science et culturelle ñoom trois heures samedi bi am nañ fi programme boo xam ne xam nga nit ñi surtout taalibe yi mel ni man di leen jàngal kan mooy seen sëriñ dina yokk sa dina yokk mbëggeel ci ñoom ñoom am na ay ay film documentaire yu ñu def ci ci Cheikh Ibrahima Ba def ko ci Cheikh Baaw Ba ak tam njàngale yi nga xam ne Alaaji Saalum Alaaji Maas ci ay lettre ci seeni relation ñu def ko ci arabe def ko ci français ñooñu am nañ fa euh, seize heures quinze heures ba seize heures programme boobu sunu sunu rakk une heure du temps yoo xamante ni dañuy def ay film projecteur yoo xam ne képp ku ñëw ci dëkk bi ñëw ci base bi di nga gis ne loolu danañ ko kii loolu am na lu muy def di wax léegi ci li Cheikh Aliou doon wax xam nga Cheikh Alaaj Baaba bokk na ci karaamaam xalifaam di Mawlaay Cheikh Ibrahim Ba di ko ñaan yàlla yal yàlla may ko tawfiix mooy bokk yu baax dafa am solo moom la yàlla def muy xalifa boo xam ne loolu nag dañ ci sant yàlla bu baax xalifa boo xam ne boo toogee sa côté ndeyjoor mën nga lim sa juróomi baay boo toogee sa côté càmmoñ mën nga lim sa juróomi mag yoo xam ne yéen bokk baay loolu taw féex la yàlla may caalaaj baaw ba loolu ko sàkku am ko ndaxte nag koo xam ne mën nañu wax ne euh, man am nga juróomi mag yoo xam ne ñu ngi ci sa biir kër baay ak sa kii kër doomi baay am nga sa juróomi baay yoo xam ne ñoo sa baay la woon waaye nañ nangu niñ la nangulee sax nanguleewuñ ko woon sa doomi baay waaye loolu lan nga ciy gis rek mooy ne cër bu caalaaj baaw ba joxe woon mu dellusiwaat ci moom rek waaw mooy mooy mooy mooy mooy mbir mu nekk boo ko tegee fa mu war a tegu rek résultat bi lii lay kon dañ ciy gërëmee yàlla gërëm ci Mawlana Cheikhul Islam waaye gërëm ci Cheikh Alaaji Baaba ci yàlla bi mu yar mooy li mu doon wax ne sama gannaaw dana métti mais dara du yàqu alhamdulilah rabbil alamin bopp la jëri dara yàquwul loolu dañ ko ci doon mottali li ñu bëgg a wax léegi mooy li euh, Cheikh euh, Baaba génnee léegi mooy ngoli ba dafa nekk selebe yoon tey Ngodiba boo jógee Nganda Ngodiba ngay duggee boo jógee Pate Thiangay Ngodiba ngay duggee boo jógee Kaffrine jëm Nganda Ngodiba lay duggee donc bu nekk foo xamante ni axe bi dafa nekk foo xam ne dafa xaw a sensible te yàlla daf dafa def tali bi amul yoonu secondaire kon dangay gis ne képp kuy ñëw ci waruwaay ci dox yëpp ci tali bi ngay jaar ñuy ñaan di lancer message boo xam ne ñun ñi ñoo ci jiitu mooy ñuy ñëw ñu bàyyi xel ne am na ñuy dox ci kaw suuf am na ñu takk ay saret am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ñu ànd ak dal sëñ Fallou Mbacke Mbacke moo daan wax ne dal ci ndox lañ ko bëggee waaye ci nit la gënee tey ci ndox lañ ko bëggee waaye ci nit la gënee kon ñu ngi lancé message boobu ñi yore oto yi ñu bàyyi xel ne tali bi lu baree fii jaar loolu dañ ci kii xam nañ ne gendarmerie ak police danañuy def ay checkpoint bi police it ñu ngi leen di gërëm parce que ku ne xam na ne ñoom ñoo seere intérim bi ci biir ci biir dëkk bi da ngay gis ne am nañu oto yoo xam ne dañuy soxla ay bagage ak yooyu mais def nañ ci tey macha allah def nañ ci loo xam ne xam nañ ne respecté nañ seen ndigalu kilifa ñoom it ala kulli aale ñu gërëm leen sant leen donte la gendarmerie ñoo yore territorial kon ñu ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi ñëw na nga ànd ak na ànd ak dal ndax nga ànd ak ba ñëw ci jaamu fekk ci jaamu ndax ñu ñëw ñëw ñëpp yëpp yiwu yàlla lañ fay sàkku te incha allahu rabbi ñu ngi séntu ne yàlla danañu ko fa may waaye ñu ngi fàttali ay waaw waaw dafa dafa dafa xat waaw dëgg la dëgg la dëgg la foofu itam ñu ngi ciy gërëm gendarmerie ndax jël nañ ci ay dispositions yoo xam ne yaakaar nañ ne dina dina dina dina xaw a dina dina dina kii daal danañu ànd ak comité d'organisation bi ba li nga wax noonu parce que boo xoolee foofu benn dugguwaay la waaye buñ ko organiser rek incha allahu rabbi euh, mbooloo mi dinañu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm li ma ci doon yokk léegi rek nga xam ne Cheikh Aliou mi ko ci doon wax mooy Cheikh Alaaj ba kilifa la woon boo xam ne dafa amone relation ñëpp ku ne xam na ne ni amone relation ak ak Cheikh Abdou Barhama ñu ngi nuyu khalifa xalifaam Cheikh Baye Awan ba ci dem rek ñëw na fa wala ne magam la set yónnee na fa na bayam daan defé Cheikh Alaaji sal Ndaw kasaalika nak nonu Cheikh Cheikh Cheikh Danka kasaalika nak nonu ñi ngi wone ne ñoo bokk diine ji ñoo bokk tarixa bi waye ñoo bokk yi ki ñi séntu muy Mawlaayal khalifa Cheikh mahamoudou may kon mbiri seen mbir la lolu ñu ngi leen ci sant ñu di leen ndokkeel ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la seqan suñu yoon suñu maam kër borom Touba muy ku mel ne sëñ Modou Mbacke suñu mbokk yi nga xam ne ñooy waa kër euh, Seydi Hadji Malick ñoom ñooy ñëpp ku ci nekk yaa ngi yeble sa ndaw di wane ne bis bi bis la Sénégal la yàlla teraangalee loolu. Sénégal yàlla teraangalee na xamewu kii murid la xamewu kii tijaan la xamewu ki julli la xamewu kii chrétien la loolu nag dañuy sa message encore une fois ci seen antenne bi nga xam ne xam nañ ne fu nekk àgg na xam nañ na antenne la boo xam ne autorité yëpp ñu ngi koy déglu waaye ñu ngi ñaan ne jël nañ yoo xamante ni Sénégal soxla na ci dal te ñu ngi bàyyi xel yi ne incha allahu rabi dal rek moo ci am ndax ñi fi tëdd ak ñaani ñaan yàlla yi ñu ci dem waaye ñu ngi fàttali ñëpp ne samedi incha allah le treize bu ñu añee ba pare na ñëpp génn parce que gan gi ñu am gan la boo xamante ni macha allah muy Mawlaaya Khalifa Cheikh Mahamadul Mahi ñëpp génn mu fekk leen ci tànt bi saafo saafaante ak ñoom xool leen ñaanal leen yàlla ñu delluwaat ci jàmm lolu rek buñ ko amé ci ziara bi doy nañu sëkk khalifa ñëw ànd ak ay rakam ak ak ak ak imam akbar ndawam ñëw ñu xol talibé yi talibé yi xolé ñu ñaanal leen yàlla xëy woow nonu jarna lu nekk bo tax ñi ngi lancer appel fépp fu nit nekk di ñaa commencé di ñëw waye fépp fu nit nekk na nga baye xel ne khalifa bi mi ngi lay wo pour ñëw téwa ci téwa yu Cheikh Mahamadou Mahi di sa terre na fekk ñep moy cérémonie officielle bi inshallah rabbi ñu baye sunu mbokk Cheikh Aliou nga xam ne moom macha allah moom buy wax ci Cheikh Ibrahima ba da ngay gis na rek ah, sagoom àndut ak sagoom waaye nag mbir noonu la ku nekk eh, la muy sax ko ko ñàkk màcc ko xam macha allah xam nga la séeréer ba waxoon eh, eh, bi jox jox séeréer bi séeréer bi jox sëriñ bi àddiya mu ne ko waaw léegi su ma la jiitewoo àjjana moom fu ma lay xaar ah sëriñ bi na teg. dama yaa ngi waa léegi wala léegi yow noonu su ma la jiitoo fu ma lay fekk mu ne teg mu ne ko delloo ma sama addiya maanaam lu ma bëgg a wax foofu mooy taalibe bu ci nekk eh, eh, sëriñ bu nekk sa maxaama noonu la sa taalibe war a mel ni nga bëggee sa bopp noonu nga war a bëggee sa taalibe Cheikh Ibrahima dafay wax mu ne moom gëmul taalibe boo xam ne sëriñ boo xam ne li li dagan ci bi dagalu ci sëriñ bi maanaam dafay lan la bëgg a wax mooy taalibe bu amee lim am li mu war a am dëgg-dëgg waroo leen xàmmee ñoo war a yem ci lépp mooy li sëñ Babacar doon wax nit la koo xamante ni macha allah rabbi du li ñu nekk magam waaye li mu nekk suñu sëriñ moo tax mooy nit la koo xamante ni nit la ku ku ku ubbeeku ci jamono kon Seydi Aliou moom mën bi yàpp koy sant ñu ngi koy gërëm macha allah waaw macha allah. waaw alhamdulilah sant yàlla. naa ne ni ko ñëpp waxee buñ ci yemoon sax. nit ñi danañ mën a jëriñ jëriñoo li nga xam ne moom lañ jot a wax yépp waaye ziara bi ni ko ñëpp waxee rek dafa am cosaan te ñëpp man jot naa ci ñoo xam ne ñu ci bëri ñoo xam ne bu euh, ziara bi di ñëw dañ koy waaj jamono bu nekk ñuy laaj sax ziara bi kañ la ngir aajo yi nga xam ne yàlla dana ko ci fajee ndax ndigal la loo xam ne Mawlana Cheikh al Islam moo ko ci joxe woon te doyoon na rek ñu ne la dëkk bi bàyyi ñoo ne fi juróom-ñaari yoon. loolu rek yaakaar naa ne doyoon na fu xut bu taxaw nga daagu ba yegg fa taxaw fa dëgg-dëgg loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi daan na ko wax ci boppam daan na ko wax ci yonent bi mu ne dajewuma ak moom jamono maanaam ci waxin ndax bàyyi yonent bi mos ñoo tàqalikoo waaye mu ne naa ñëw rek seet na jaar ci mbedd yoo xam ne man wóor na ma ne yarantu bi sallallahu alayhi wa sallam teg na fa tàggam te loolu yëpp comme bàyyi ñëwoon na fa daal maa ngi gëm ne ziyaara ku ñëw yàlla dana fa si aajo waaye nag ñëwee ci jikko yi nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Lislam tàggee waa Ngodi ba ndaxte wax dëgg yàlla nga ñëw ci dëkk boo xam ne da nga fekk seen lépp rafet seen lépp daal kenn mosul leen a xam ci jaxase soow mi ak deret bi wala jaxase suuf ak ni koy ñenn ñi defee xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'an maanaam jaxase suuf seeg cere ji loolu moom dalut waa daarul muhibbin te loolu produire Mawlana Cheikh Lislam la liggéey bu liggéey bu rafet la moy delu rek ci ñaan gi mo xon ci Cheikh Alaaji baba ba jaala wallahu khalfan la khalfan te kay gi ko baye bindon Cheikh ibrahim ba wan mako ma rek bi Cheikh Ahmed Tidiane ñewé ngodi ba euh gannaaw gi ba Cheikh ibrahim fekk ko Medina fa baye ñes bindon na jaala wallahu khalfan la khalfan mom fofu la tourner ci pegg foye ba mu bind fa jaalaka allah khalfan mom daf ko mu xaataba la sax comme Cheikh ibrahim mi ngi tok mu na jaalaka allah khalfan la khalfan dafna la nga nek khalifa yàlla yàlla bu nekk xalifa buy yàq lañ ñaanaloon bayam ci ñu moona na Cheikh l'islam mom la moona na Cheikh l'islam Islam ñaanalaan ki nga xamne moy khalifa fi di Cheikh Ibrahim Ba te Cheikh Ibrahim ne ko Cheikh babakar waxe legi rek dafa nek nit ko xamne wala ñi fi jaar yëpp ku neex a jëflanteeg la ma ngi wax ne mané ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne ku yitté won mbiru julit ñi bokko ci ñun waye mané ma ngi joxe exemple ne mom xam nga kuy baax moom da nga njëkkee ci sa waa kër say soxna say doom say xarit say dëkkandoor loolu Cheikh El Hadj Babou wax na ko léegi ci teraanga yi nga xam ne mu ngi koy def te xamul wala kenn yëgul ko lu booy ñi muy yónni ñooy xam ne fii lañ ma yónni diw nangam ci ordonnance yi ci dépense yi ci nangam man xam naa ci lu baree bari ndax du ma toog 24 heures yoo xam ne déggante wuñ euh, moo xam ñu nekk ndakaar moo xam ñu nekk Medina moo xam bu nekk Sénégal wala bitim réew sax lépp danañ ko déggante. li mu wax sam sànqatim na Cheikh Ibrahim ba ku ku ku ku mën a sonn ci jaamu yàlla la nekkul na dafay woo mbiru julli nii rek bàyyi mbiri yàlla yi déedéet yàlla nee na fa ida faragta fansab ila rabbika farghab maanaam ñaari ay alquran bi nga xam ne tey moo tënk ñaar yooyu wa ma jaalnaahum jasadan laa yakuluuna taama wa kaanu xaalidin ñaar yëpp daf koy matal mooy dafay fexe di dund dund bi mooy lan mooy di sàkkul lu dagan Cheikh Ibrahim dafay bay man xawma kilifa gu ko dàq bay fii ci euh, Saalum gi ñu nekk wala ci Sénégal ndax gouverneur bi fi jógee bu yàggul ñëw na seet si ko ci tool yi nga xam ne dëgg-dëgg mu ko doon dafa te ku ne xam ne ne du loolu moom ci lay dund waaye daf koo def ndax ànd nañ bureau bi nga xam ne mooy bureau gouverneur bi fi jógee mu ne ko ñun dañuy bàyyi du dund suñu taalibe yi nangam nangam mu ne ko xam nañ ne yow seen taalibe du ñuy yelwaan te waxooñu ko yow waa kon dëgg-dëgg kooku mi ngi mu ngi fexe bay dundee ñaxam waaye beneen bi ci mi ngi fexe bay dund ak nit ñi yàlla li muy dund moom lay wan nit ñi ma ànd nañu tukki dem Maroc léeg-léeg man man man nalaw ba biddante waaye moom foo foo gestu rek mu ngi téye kurusam gi di wirda di jaamu yàlla di jàng alquran nekk koo xam ne boo ko bëggee xam sax mu far na bu la benn yoon te loolu melokaanu góor yàlla yi la waaye loolu mu doon na ko ci Cheikh Alaaji Baaw ba mi waajuróom nga xam ne waxtu woo waxaar rek mun a jàmm da koy am baat boobu Cheikh Alaaji Baabu daana ko wax loo wax rek mun a jàmm da koy am koo xam ne nag ci jàmm lay dox loo ko wax mu ne jàmm da am jàmm da war a am kooku jàmm rek la xamoon mooy Cheikh Alaaji Baabu ba nga xam ne dëgg-dëgg liggéey na ci dukumaan lu yaatu ànd ko mboolem muqaddam bi fi nekk di ko Cheikh Babacar waxee ci mboolem këru diine yi waaye mboolem état Sénégal ci fii ci Kaffrine gi ñu gën a jege Kaolack ak nangam foo laajte kan mooy Cheikh El Hadj Baaw ba ci faydu Mawlana Cheikh Islam danañ la wax na la kooku ku yaru loon kooku ku amoon yar ak tegiin loon te mandarga bi bàyyi waxoon ci Daaru Muhibin dafay feeñ ci moom waaye dafay feeñ sax ci li nga xam ne moo wër ngodi ba dëgg-dëgg loolu teraanga la boo xam ne li waykat bi wax rek mayeeg ndukumaan gi dukum neex nga am ko waaye yàlla moo ko jagleel waa ndukumaan bi fadlillahi tabaraka wa taala wa karami yi ci lañ ko amee ñu ngi ñaan yàlla ziyaara bi yàlla nañ ci dugg ci ak jàmm mu jeex ci jàmm te yàlla bu mu nekk suñu ziyaara bu mujj yàlla ñëpp ñëw ci jàmm ñu def ko ci jàmm yàlla musal ñi ci teq-teq yoon yi safoor yi ni koy nit ñi waxee sëñ Fallou Mbacke daan na wax ne dawal oto yomb na mu ne bu ne yàng nga ne coow waaye bu ne tacc nga ne ceen te nga téye mu dëgër kon safoor yi téye leen baar yi mu dëgër bàyyi leen whatsapp yi bàyyi leen téléphone yi bàyyi leen audio yi téye leen ngeen xam ne ay doomu aadama ngeen yëpp jakartaa yi daf leen ndànk bu leen nekk di rawante ku yàkkamti day def ndànk waaye ku ñeme day ragal ku yàkkamti dafay def ndànk looy yàkkamti sax loo fi yàkkamti yow looy yow bu fekkee ci ziara bi la boo demee da nga fekk nit ñi ci ci ziara bi ka ngay yóbbu ti yàkkamtiwul dafa bëgg a yegg dëgg-dëgg war ngaa mën a daw ndànk pour yegg ci jàmm ndax ku yàkkamti dafay def ndànk waaye ku ragal ku ñeme tim dafay ragal loolu laa dégg Cheikh bi di ko wax ñu ngi ñaan yàlla ñëpp ñëw ci jàmm ci barke suma sabila yasarawo ci barke ki joxe ndigal Mawlana Cheikh Ibrahim ak ki ñuy ziara de Cheikh Alaaji Baaw ba ziara bi dëgg Mawlana Cheikh Ibrahim Ñas la di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu at bu mujj Cheikh Ibrahima ba ñu koy ñaanal yàlla yàlla bu mu gàtt fan yàlla bu mu gàtt wërsëg yàlla bu mu accident yàlla bu mu benn cëram manqué ñu ngi ñaan yàlla na ko Cheikh Alaaji Maas ba doon waxee ñu ngi ñaan yàlla li ko war ci umma bi li ko war ci doomu aadama yi li ko war ci senegal Afrique li ko war ci àddina bi yàlla bu mu ko të ndax doomu aadama li ko war dafa bëri wa ma zalika ala allahi bi aziz wa kullu amin wa antum bi alf xeer wa rahmatullah nga xam ne yéen ay partenaire ngeen ci ziar Ngodiba yaakaar naa direct bi njëkk a def ci rajo locale yi Kaffrine FM bii la te loolu engagement boobu ba léegi ci loolu ngeen nekk kon ñu ngi gërëm kilifa gi commencé ci euh, borom dëkk bi monsieur le maire euh, Cheikh Abda euh, Abdoulaye Seydou Sow ak ministre Abdoulaye Seydou Sow ak Mohamed Birane directeur ak Dia journaliste ak oustaz Mbaye Cissé suñu technicien li ma bëgg a wax mooy lii yëpp buy am mi ngi amee ci. Euh, organisation bo xamanteni comité d'organisation bi jël euh, commission presse et communication nga xam mbay Mbaye Cissé moo ko ak suñu rakk tala Cissé ak suñu jarbaar Asmaali Wilane ñu def ci liggéey bu am solo bo xamanteni ci turu comité d'organisation bi ci turu président mam Alhaji masba ci turu monsieur monsieur Mballo moom moom lañ tuddé Baye Fallou Cheikh Ibrahima Ba nga xam ci membre comité d'organisation organisation yi la bokk ci seen tour lañ leen di santé di leen gërëm. liggéey nañ liggéey bu rëy ci ziara bi tey communication bi àgg na fépp mais grâce à ñoom donc ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm loolu lañ ci doon yokk ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu